parce que euh, ñun ñu ñu doon ñaan sax nguur gi du ñu jàppale du toppatoo place bi parce que place bi du pour anciens combattants yi rek ñëpp ko bokk patrimoine national la soo xoolee ñun suñ suñ dëkkuwaay toujours su tawee day fees del del del del ak ndox ba si bureau yi vraiment ñu ngi doon ñu ngi doon souhaiter que yi le service civique et tout ça ñuy xalaat la maison des anciens combattants parce que maison des anciens combattants fierté la pour tout le monde voilà